da leen defal benn démonstration boo xamante ni bii képp koo xam ne yaa ngi tux lii ñuy def na nga ko bàyyi xel boo ko jëfandikoo comme ni ñu ko waxee dina tax nga bàyyi tux moo xam yàmba moo xam cigarette kon ngeen xool lii nga xam ne moom lay defal Baye Fall kaay génn si kursi jox ma carte bi lii carte bi. kon kër xibaar yi nii ñu ko ci jàmbu mu seey ana cigarette bi bi ngay tuxee jox ma cigarette bi cigarette baa ngi nii moom lay tuxee bu doon yàmbaa tam yàmbaa la may jox def ci nii ñoo la yàmbal pon pon pon tam see bopp andi ngeen xool baax yéen ñi nga xam ne ñooy bëgg a tux te bàyyi tux nii ma koy defee lii pon la xam nga comme da ngay da ngaa boole cigarette ak Poul moom nga bëgg a bàyyi. waaye tuxoo yamba. bàyyi nga yamba. Mm, kon gis nga kon bàyyi na yamba cigarette la bàyyeekut ak Poul kon jaxase naa ko gis ngeen ni ma ko jaxase bool yi kaay sëggal sëggal sa bopp sëggal sa bopp bu baax. Iya, lii rek amul lenn loo ciy jàng boo koy def xanaa yaa ngi dégg seex mu mhm. hmm, daal koy segg nag ba mu set mu daal ci naan ñetti kaas ci benn bis saa bu naanee day raay biiram loolu mooy tax mu bàyyi cigarette cigarette di koy gindi ko ñi ko def ñépp moom li tax mu ñëw bi daa bari ay mbokkam yu fi jaar ñoo xam ne ñoo fi dàqoon tux waaye bi ñu defee lii rek laa dégg kon moom lañ koy defal nii ngeen gis ko képp koo gis vidéo bii ñu am mbokk mu tux boo ko wanee ba mu gis ko rek na ko defee boppam amul lu ñu fiy jàng amul leen kon Baye Fall jeex na léegi boo noppee da koy segg ba mu set boo nga naan ci ñetti góob hmm? nga naan ñetti góob nag nga def nii sa loxo raay si biir jeex na benn yoon koy jël ñu jeex tux mbokk yi kon loolu moo nekk vidéo bi démonstration bi tax ma def ko damaa bëgg képp koo xam ne yaa ngi gis lii may def soo ko jëfandikoo ñii ma la ko waxee da ngay bàyyi tux nga xam ne ndox ngay ut comme bool baa ngi nii def ci cigarette bu dee da ngay tux cigarette nga def ci cigarette si bu dee da tux yàmbaa nga def ci yàmbaa yi bu dee da ngay daan sàngara nga sotti sàngara si boo noppee def ci daggu karité raxas sa bopp boo noppee segg ba mu set nga naan ci ab mag ñett yoon ci bis soo nappee nag nga sëpp ci sa loxo raay sa biir jeex na amul leen lu ñu ciy jàpp amul leen lu ñu ci wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.